باسم الإله lii may def nag daanaka mënuma ko waaye sañuma ko bañ ndax ab julit du tas yaakaar mbokkum julitam te yaakaar ngeen ma ci te itam ndigal ab taal du ko fayee dinaa dafa jóge ci baatu suñ daam lu ma tële tële tële dinaa ci ay baat xam naa bari du bari sax ndax mënuma ko noonu am naa yéen waaye man di nekku fi sëñ nag yàlla da koo defal ci bindee bi ak cofeel ak wegeel junne bi dañ ko bëgg wekk ko loolu yàlla moo ko defal ñi ko xam ak ñi ko xamul boo déggee maam Saliou sa xol lañ dugg loolu yàlla moo ko defal wax na wax na xam naa du bëri maanaam nag ci mujjam daal lay wax ndax bi nga xam ni bii Cheikh la Cheikh la Fall su suñu ba wàcc daf daal di topp ba mu jógee euh, Mbacke Kajoor dafa fekk euh, Cheikh la Fall nekk fa ab diir dem kees nekk fa ab diis ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem fu ñuy wax ndunka la jëkk a sanc moom Cheikh Alfane ànd ak Cheikh ànd ak sëñ Saliou ca ca ca ca affaire feebar ba feebar bu métti ba ba feebar ba sax sëñ Saliou moo ñëw mu giif ndax ba mu méttee ba métti sëñ bi da ko wax Cheikh Ibrahima da ko wax ko Saliou ba mu ko wax rek la feebar bu jeex. amul peste ba amul peste ba sëñ Saliou ko jeexal ci ci kàttu sëñ Tuubaa moom la ko suñu daan ne ko ne ko na jeex mu jeexal ay soxnaam sax gaañu na sëñ Saliou waaw am na si am na si ñu ma xam sëñ ah, soxna Anta Ñaan moo yónnee sëñ la ci la ci la ci la kii bañ ñëwee Njaaréem bañ jógee Ndunka mbir na faar lañu sanc fee fee fee jubaa bi day baax na waaye barab baa nga ci kanam de ñu ne ah Saliou yow de lu wax dëgg la ndax man nga mu ko wan mu ne ko waaw ñu yaanu ñëw ba si néew gi si foofu néew gi nag mënu ko dëkkal fi ma dëkk fii mooy fay fa njaateen ah, Cheikh Rafal Makka waaw dañu ko yàq rek Madina mu noor la ko tuddoon Madina mu noor la ko tuddoon dégg nga ba nga xam ne sëñ bëgg naa sañ ci dëkku boppam ci ndigalu sëñ Touba mu ne ko jox nañu ndigal nguur ba gis daaru xubóor gii gisal leer gi ak baatin daana wax naan kilifa sàngam day fii la bëggoon waaye maa ko jalax da ko daa wax de kilifa du ma tudd tur yi nag du ma tudd tur yi kilifa sàngam di fii la bëggoon waaye maa ko jalax kilifa sàngam fii la waaye maa ko jalax bi mu ko sancee ba mu doon ab dëkk mu dem sëñ ni ko ah, ñëw nañu de ñi mën a ñëw de ñëw nañu waaye de ab dëkk mënut a ñàkk tur boo jox naaw tur mu ne ko dinaa yebal sëñu Sam Mbakke ak sëñ ma Sam Mbakke jox ko tur bañ ñëwee sa suba mu yendoo leen danan leen ba takkusaan ñu ñëw fii ci ginnaaw taxaar yi ñoom ñett lii la ci laamu sëñ Saliou laa ko nangoo lii may wax ci laamu sëñ Saliou laa ko nangoo mu ni sëñ Moussa Mbacké ak sëñ Moussa Mbacké sëñ Moussa Mbacké sëñ Moussa Mbacké kon nag joxe tur yi sëñ Moussa Mbacké kon tudd nañ ko daaru ñu teg sëñ Moussa sëñ Moussa Mbacké ñu xafoor ñu daaru xafoor kon nag dëkkum jé dëkkum jéggal a ngoog loolu mooy daaru xabul sëñ waaw daaru xabul sëñ ma sàmm sëñ ma sàmm moo ko tàmm tudd sëñ ma sàmm Mbàkke moo ko akale sëñ ma sàmm dañ daaru sëñ ma sàmm Mbàkke xaroon kon dëkk bi jégal woon dégg nga li nga xam ne ñu ngi sanc armeel yi sëñ bi da sëñ sal dani armeel kan mënut a ñàkk waaye li waaye mënut a ñàkk dem nga fii ci penku boobu ak nee na gu réerée fi nekk mu nee na bii di kuñ kuñ fi dañu jégal la nee na bii kuñ ñu tudd ko du baax ne nag moom la ñu ci yee jamono Touba mooy armée dëkk bi waaw Touba nee na lañ ko la wax boo boo dem Touba dinañ ko ji boo ko dem Touba dinañ ko ji ba tey boobu dëkk bi maraw mu métti la ñu nekkee dal ji la ñu roote mu la cënc mu tàmbalee gasub teen bàyyi suñ ba ñang ñu dal fii ak suñu waar ñang rakam magam ñoo doon gas teen bi teen bi ci bi ba ñu ko ba mu sori suñu waar ñang wàcc liggéey ñu toog ab diir sëñ Saliou woo baax sëñ Taïba ñu ko sëñ Taïba liggéey bi yaa ko moom teen bi soo ko bënnee dina la bënn teen bi soo ko bënnee mun ko giñ naa sa bakkan sa jëm naa ko bënn ñu bëgg ko ñu amal ci doom ngi fii ñuy gas ba ba teen bi génne ndox ñu ne bënn na bàyyi si ne bënnul de daal sakk bën bën di gas ba teen bi bënn teen ba mu bënnee dafa door napp bi ndox mi génn mu dóor fee mu xam ne génn ba mu xam ak si kës yii mu xam ne bënn mu daal di génn daañu tey bu dee bënn ñu jiw ko danc fi pecc mi ak yëfi coow coow li ba nga lool mu daal wax ko sëñ bi sëñ daal duggate duggate na muy duggate daal di ak sër ko ndox mu ni xel lew ah wax nga de sëriñ wax nga dëgg de ndox ma nag booba dafa naqare booba dafa naqare woon boo ko mosee da koy bëgg a yàbbi mu naa ah, wala am na lu ñuy wax dañu garab lu neex te mu dee saafara la waaw suñu saa yi moo ko xam mu ne saafara la waaw loolu de moo ko waxoon. dégg naa teenu teenu dañ koy gane si. dégg lu ma man dégg loolu dégguma man sëñ saa laa dégg sëñ saa dafa daa biseen daa bisu tàmm xarit ñu reer ba noppi mu toog nii ma toogee ñu ma indi ndamu ndox ñu teg ko fi kanamam mu tàng naan ñaan daañu Samsam dinañ ngi nii. yàlla may na ma maw samson ba nekk Makka ak ay ndox bu nekk Touba bu du tam sagon dina ñëw ci teen bi ku bëgg samson guddi sam xar na nga ñëw ci teen bi loolu salaam suñu saa laa ko na ko du kenn nee na ma loolu day moo ko wax sëñ Saliou Fall daana wax naan sama taalibe bi day du fi jóge te ak ruum ta sama taalibe bi du fi jóge ak ruum tàgguwuma loolu daana ko bu leen ma woo si caaxaan man ne ku ma ku ma si dëgg naa la wuy ba nga xam ne wuy naa la bàyyi ma saat borom kër gii di nuyu ñu am na xam-xam am na turu yàlla boole xam-xam ba ak turu yàlla di ko jébu sëñ Tuubaa ah astaxfirullah ci sëñ Saliou sëñ Saliou di di ko liggéeylu si turu yàlla dafa yebal ñu ko ñaanal moom sëñ sëñ ma saar moo ne moo ne li muy bëgg a wax sëñ ma da ko yónni woon Banjul ba mu demee ba yittee mat mu dugg gaalu looto ak gaal yooyu muy loso gu mag bi ñu duggee ba si géej gi gaal gi eh, eh, du si bari mool bi ngeen ah nan nan na ngeen ànd ak tey te gëm yàlla géej gi soppi ko na de waaye mun ma dëpp nee na am du soo xam dafa yenu gaal ba mu dënge ba yéeri daanu bàyyi ma sal sia ah, Cheikh Saliou Fall mu mu ni dëngay mu ni yaa Cheikh Saliou Fall mu dëngañ bu jub xocc mool bi ak yéen ñëpp ñaan yaa Cheikh Saliou Fall yaa Cheikh Saliou Fall ba ñu fii ci moom moom ku jubee dafa muun sugg na mun ko munu munu wuyu naa la de mun ko wuyu naa la de de moom sëñ Saliou ko wax wuyu naa la de ah, ak mu jëm loolu a leeral ak mu jëm ak mu jëm suy wàññi <laughs> dafa jekk ba yàgg mu man saa yu astaxfirullah astaxfirullah sëñ mu daan doomam doon doon doon doon doon gën ko woon. ko jege woon man ñi moom laa tëdd sëñ mu daan moom laa liggéey ba am gën mu ñëw fi moom bay ko Modou mu kaa gars am na xam ñaari weer moo ko def si mu tiit mu ko waawoon ci daxaar yi moom daf daa daf daa génn ba digg ba sëg mbooloo mi yëpp di ko toog muy waxtaan. Euh, yëkk bi mu euh, dafa dafa am ay mag la yëkk bi wax saa daaru ndox moom daa nañ naññ ñetti naññ mun te mun xalaas dégg nañu ko de xam nañu ko it ñëw toogal xam ah comme yéen ci xam sëñ Saliou day yàq baag mu wax mu wax ba nga xam waxtoo ñii wala mu yàgg mu téen téen mu yàgg loolu daana ko def waaw mu ne ah xalaas dafa wax ne juróom-ñaari weer moom la des te fekk na xam naa ko waaw ñaar ñaari weer yooyu man ci weer njël benn koor la ko wax njël benn gàmmu la fi jóge boo limee koor kori diggi tabaski tam xarit diggi gàmmu ñetti fan gàmmu ñetti talaata la fi jóge sa njaaram moo ko jullee waaye Tuubaa la ko jullee Tuubaa lañ ko jullee waaw ca tisbaar la ne ko doon yóbbu ànd andoon naa ci mën naa la mën naa la limal mbooloo ma ñu àndoon naa ci waaw <laughs> ah ko de